Koum ah, eh, kii Mbaye. waaleykum salaam. ça mu wuy ma fii sa morom nekku fi man nekkuma liggéeykat boo xamante ni nii da nga may këll këllee wala lan la Mbaye su nekkee respecté sa kàddu nga wax ma ko fii amoo loo fi apprenti wala chauffeur boo xamante ah, ni déedéet déedéet déedéet nit day ponctuel respecté heure dëgg la am na lu ñu waxante wan. man foofu ma kaay ñu dem. man foofu ma damay liggéey. yow tamit loo def liggéey yow nag lu ñu waxante wan. mbaay nit day respecté kàddoo man magum jëmm laa gënoo maa doon liggéey ka kafuma. waaw yaa ngi may dégg. mburu ba sos nañ ko ba noppi. mat leen yaa ngi foofu noonu ñu tegal la. waaw waaw mbaay ma ma toog di la xaar ba sonn ñëwuloo. comprendre ma rek waxoon nanu leen waxoon naa leen ne mais yow waroon woon ñëw ci kër gi nan dem ah an kay ma toog mais ñëwuloo ma ñëw. ah waay. déedéet waay ah déedéet waay. ah tàgg nga ko de. naa ko kay xam nga ma damaa bëgg couleur. ah foo jëm. léegi ma wax xam nga démb am na loo ma tere woon moo tax ma bëgg a confirmer benn affaire da nga maa tere génn kër gi dem di ndogoo ji feneen. Mourou waat démb bi may woo sa kanam la amul nu mu def pour ma ñëw ma ne ko mënta ne léegi nag xam nga laa bëggoon dem rapidement këram rek seeti soxnaa mi xam nga ñëwaat. parce que même maam jaaraat ñoom ñëpp ñu fa. ñu ngi lay laaj am Ndiaye Ndeye Ndiaye moo tax damay dem rek ñëwaat du ma yàgg. xam nga yaa may baax soo waxee loolu xam nga nu mu mën a waxaat leneen. waaw kon jeex na yow sama xarit mais fa yàgg de. mais nag du ma fa yàgg mais umu umu yow démb waawoo ci reerukaay bi ñuy reer diggante sa sa suñu ñaari gars yi xool damaa gis ni yaroo. tappaas na waa ji ba sonn mais waa mu ngi jàpp ñaamuram rek sama jarbaat kay démb dafa mel ni sa waay da koo jekkul na ngeen def ak ngi fi rek kay. ngi sant yàlla baax. loo am loo fii moom café am na fii am na tamit sexaw. sexaw. waaw na café ak meew am na yëpp. am na lan. am na kafe ak meew. am na sexaw. am na sexaw am na café meew. waaw. am tamit café Touba. mew kessé da ngay jaay. waw mew kessé tamit. amna na yow wér koor bi kon da ngay jaay si wér koor bi ni da ngay jaayale waw yow. sa yow sa portable bi ni ngay def mel wér koor bi da ngay jaayale la wax wér koor bi. waw ah waw yow wér koor kenn du ci jaay di lool baaxul de. Eh, yow yow sa portable bi ngay génné ni di filmer ni lan la. lan mané sa téléphone bii ngay génnee nii di filmer nii. kan moo filmer. eh eh man nii damaa ñëw jënd. eh booy jaay ma nga jaay ma ku lekk yaa am ku lekkul yaa am man de su ma neexee lekk. yow eh dama ni. yoonu kenn nekku ci. nit buy lekk kenn du ko filmer. parce que sànq njëkk nga kaa génnee yaa ngi may dégg amul benn. tak tàkk bu am sa parce que lii instant bii nii moom eh wuy ma. kan lay filmer yow lay filmer wala. sa njaay mi yow kan lay filmer man ku lekk fi nit buy lekk kenn du ko filmer waaw nit buy lekk nga wax nit kay da ngay woor moo gën tamit di lekk nga assimilé nit da ngay assimilé man de euh, Bas waaw maa yay waaw man kenn mënu maa tere def li may def ku nëbbatuwul sunu borom doon nëbbatul mbir def li tax wóoruma man maa ko xam damay lekk yoonu kenn nekk ci sax man man maa moom sama bopp di lekk ah, waaw waaw maa fi nekk di lekk waaw waaw en tout cas daal ma daal ba tax may lekk maa ko xam xam nga am nga seet ah, xam nga bëggoon naa ci waxtaan ak waaye damaa ñu fekk la ngay xaraj yu rëy xam ne ah déedéet dañuy sonn nag <laughs> mais nag moom lu bari doo ci mën boole lu bari fa la sama xel ñaawee ah, fi mbaay toogee man est ce que woor naa ce que yaa ngi ah. nga bi mu man mi est ce que woor naa sax ak fur la ju rëy xam nga tax nga neex ma dangaa dégg da ngay dégg fi ma wax en tout am na lu xew ma koy wax mais man j'ai pensé que ni xëy dafa am lu ko xamal mu ngi woor ah Mbaye. waaw non man kay bu may wax leneen laay wax c'est xam nga ñoo bokk seen néeg te guddi gi moom néeg bi day xumb lu ne ngay dégg moom guddi gi léeg bu ma génnee se moom lu ne laay dégg man maa ngi di bàyyi ci biir rek. est-ce loolu. yaakaaroo tamit ne sa jarbaat bu ko xamaloon dara wax ko ak ni mu mel. xam nga tiimul laa non dama ne yaro xamoon lu ko dara damaa jàpp ne kay bu ma lay wax waxuma ci côté corps bi dama ne est-ce que nekkul am na leneen lu mu ko xamal parce que ñoo bokk seen néeg laay kon yéen chaque jour ñii ngeen di dundee nii. yow eh chaque jour kii mi ngi fi yaa ngi may dégg bàyyi sa li ngay filmer bàyyi sa li ngay filmer waaye yow tamit soof na trop. kan a filmer ah. si ah, eh, man nga ko jëbale nii ba eh, ba bàyyi sa li ngay filmer laa wax. <laughs> Eh, am naa pour. eh dindi léegi ma filmer. dindi léegi ma filmer. eh dama ne day dañ supprimer lii. waaw mooy dañ supprimer li may téléphoné. sama téléphone da nga man nga man xam nekku ci man nga doon filmer. maa lekk nga filmer ab sayta dindi lii. dindiw mag da koy dindi waaye. dindiw mag da ngay dindi waaye ma waa yow. daf may dindi bu ma teewee yow. da ngay waxoon tag xam kii moo la tooñ sax moom. moo la tooñ yaa ko tooñ. yaru kay dama ne ci koor gi laa ni bu fekkoon xamal na ci dara xamal na ko dara. mbaa ni du woor wala demee noonu non ba tey wax na ko. man kay bu may wax dama naan seen néeg boobu xëy na ñoo am seen affaire yu koy def xam nga muy muy def muy muy muy muy liyaar xam nga nag yaro dafa mel ni ma nga ko yar léeg-léeg mu junj parce que man dégg naa ko keroog ci biir woy muy woy xam nga rek moom mais léeg-léeg ma àddi daal mais daal nañ bàyyi noonu rek bu dee xamal na ko dara leen na la ah. yoom gi mu koy waxal Ah, ah, yàgg na ndax amul ko eh, dara ah, eh, na seetaan façon daal hmm. nan doogu li tàng te neex maa ngi ñëw kon yaa ngi moo du waat xaar sama ñëw pour ma wax samay excuse parce que maam jaara mere na ma torop caaxaanoo de yaa ngi dem

bay ma waay yow. yaa lekk da koy supprimer waay yow. bi. man la doon filmer man la doon filmer. man la doon filmer. non non da ngaa xam ne rek ne waay yow waay mbay waay ah. du ma yem yowal waay yow ah bu ko yóbboo dafa àll. ko doole bàyyi loolu. bàyyi loolu eh bul wax loolu mënuma bul wax li mu ci jëm. waay ma ma waay yow. ah bu baax Eu não bi. dem leen está yow ku não a toog nga yow yemal benn place la ku mën a toog yow. Basiru bul tax mu rëcc bu Eu não ku. kaay maa está fii rek não ma dee. na supprimer maa ngi nii. na supprimer na supprimer na supprimer message eh, eh, eh, na supprimer. waaye rek la Eu não xam nga yow está góor sax não yow Mbaye ne ko góor yow. wuy ma wuy ma yow jigéen nga demoon nga sëy. wuy ma demoon ñu takk la nga sëy. yoro yoro bàyyi coow. Fallou bàyyi yéen la ngeen jotee sax yéen. Fallou bàyyi noonu rek. la ngeen jotee yéen yéen bi nga ñëw si koñ bi yàggul mais coow commencé indi coow ni. déedéet kii. yow jigéen nga. wuy ma yow. wuy ma yow jonguloo. jonguloo. wuy ma bul topp kii bul topp kii man lan lu ma bëgg a xam la ngeen jotee laa bëgg a xam. xam nga lan la waaw man ñun dañoo jóge ñu ko balla ñun ñaar ñoo bokk dëkk daa ngi dégg ñun ñaar ñëpp dañoo jóge ñu ko balla bi ñu ñëwee jógee ñu ko balla ñëw ñu wàcca si kër si Momadou Momadou xam nga Momadou léegi man dama amee esuma esuma bi su ma xiifee sama biir bi day xoos ma wax ko waa kër gi waree man sama biir day xoos su amee esuma bi day xoos su

te waroo koo filmé. parce que li muy dem nii na assimilé. na def assimilé. ma doo woor doo woor. bu woorul sàmm ko sutura. dégg mu assimilé. moo gën mu war si kër gi fekk si mbedd mi doo woor yow doo góor jonguloo non non loolu moom yow doo góor non loolu moom bu ko yow loolu paa bi nag amul amul kii loolu paa bi xam naa ñàkk na jom mais loolu bu ko non nice naa non non nice quoi yow xam nga fa mujjee fa ba ngoo seen garab bi léegi mu ñëw rek la man loolu sama yoon nekku ndax yéen a ngi koñ yëpp ngi nii wër sama yoon nekku yow boo nekkee góor boo nekkee góor kaa ñu dem si terrain terrain sotaral bi kaa ñu topp si école bi kaa ñu dem topp si école bi kaa ñu topp yow doo jigéen nga yow demal sëyi demal demal borom café bi takkal la nga sëyi nga nga toggal ko katal sa koon katal